foofu la jàll ci beneen point mu mel ni ba léegi damay des ci côté diine bi. doo hmm. seetloo daa mel ni diine bi léegi dañ ko oyofal. comme yi fi fol ko def mën naa ne sax léegi kuy wut sax da nga ciy jaare wut buzz. Hmm. Hmm. gis nga fi coow li fi amoon ci Wally Seck. yàggut gis nga fi Ouzin Keita. di def sa yoo xam ne da ngay méngóog loo xam ne kenn bëgg ko ci réew mi. foofu dañ fiy dellusiwaat foofu en tant que oustaz nu ngeen ko gisee woon. ni ko gisee woon mooy waxoon nañ ko mooy la ñu waxoon mooy li ñuy sàggane ci ñag ba la jëm mooy bu fekkee kenn ku nekk am na droit ci def lu ko neex ku def lu la neex kenn du la wax daara dara dara dara kon affaire góor jigéen day tasaaroo te affaire ngóor jigéen gi bon na ga waaye xam nga li ñu daal mooy li ñu sàggane yi yëpp ci école yi lay am ci lépp tëgg bi fecc bi caaxaan bi fo bi dafa ëpp dafa jéggi daaw xale yi jigéen yi génneel ci biti léegi harcèlement sexuel xale yi góor yi génneel ci biti kon li ñu gis nii lii raam mooy ci ñag ba la jëm li ñu wax nag mooy li ci yàlla wax yàlla da koo bañ da koo tere ñun tamit wax nañ suñu position ne yàlla bugg ko yàlla da koo tere am na loo xam nag état moo ko mën a dindi ñun mënuñ koo dindi état moo mën a taxaw tere ko su ko état terewul nag ay citoyen lañ ñun citoyen lañ danañu wax rek en tant que kat ku jël yaa xam ku jëlul yaa xam incha allah rabbi ndax ñun seetlu nañu affaire bi dafa mel ni dañ koo bay baylee ba mu am doole seetlu leen am na ñu nekk seen ginnaaw ci lobby ñu am doole ñoo xam ne ñoo leen di may doole di leen di pousser ndax dañ koy def mu yomb ñu wax mu génn keneen génnewaat leneen waaw xam nga xam nga seytaane dafa am dafa am am mbooloo dafa am ñu mu àndal am ñu koy yàqale am ñu koy dépensal di ko defal lépp ñooñu nag ñoom la ñuy tuddee lobby yi néew na lu nit di def fii lu dul lobby ñoo nekk ci ginnaawam lobby yooyu nag xaw ma leen man baatu lobby dama ko dégg nii rek xam lu muy signifié mais xaw ma ñan la mën nga toog sax fi ngay naanee ataay yow di naan ataay ki nga toogal fekk ci lobby bi la bokk xamuloo ko kon nag mbir la boo xamante ne bu bu bu complexe la alaa bu amee ñu nekk seen ginnaaw daal njabootu iblis lañ te loolu baaxul. waaw am hmm. sa dernier kàddu. bon sama dernier kàddu daal li may jeexalee mooy di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm. Hmm. yéen tamit mu mu defal leen ko. Hmm. ba lépp lu ngeen bëgg ci avancé. yàlla yombalal leen ko. lépp lu ngeen bëgg ci defar. yàlla yombal yombalal te it ngeen xam ne du ustaasi rek ñoo war a wax. gis nga ustaasi ñu ngi wax gaa mais liggéey bi gën a metti yéen a koy def parce que yéen a taxaw ci pour informer nit ñi kon nag yu mel nii nay am ngeen di fekki boroom xam-xam yi. fekke ñu ñu soxla pour nit ñi di dégg ndax seen baat seen kàddu fi mu àgg ñun àgguñu fa su boobaa kon ñun bu ñu defee benn cinquante bi yéen yéen a ko def kon ñu ngi leen di gërëm yéen ñi def lu mel noonu yal yàlla fay leen ba mu nekk télé yu mag a mag ba ñépp mën cee jëriñu gis ci seen bopp wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain julli bee ñu xoj nii rek waaye kon incha allah